bind nañ seen bopp ci taarixu football ñoom xale yi AFC Bambey yi nga xam ne Léopold Médar moom moo leen jiite nekk seen course capitaine ba di Papa yi ñoom day ci gaaw bi fukki fan ak benn lañ doon dajeek ak Boulder fële ca Saly stade bu jàmbaar ci ab jongante boo xam ne métti woon na lool bari coow waaye xale yi gëm-gëm bañ yóbbu woon moom moo di yóbbu national de équipe bu Bambey bi nga xam ne bañ ko sosee ba tey mosu faa dem jongante bi taroon lool ba ñu amee ñeent fukki simili juróom faale toj jaax ya waaye nag arbitre ba mayu leen dara ñu jongante ba temps jeex mu yokk ca juróom ñetti simili ba juróom-ñetti simil lay jeex la waa Boulder dugal coow la ne kurlu waaye nag teewul xale yi gën a gëm seen bopp ñu dem ca la nga xam ne moom lañ tuddee teg dàqa dóor ca mbaal ya ki nga xam ne moo nekkoon meilleur gardien bu championnat régional bu njaareem di Serigne Mamadou Lamine Bala Der defaat am mëninam mayul waa Boulder dara luñ dóor mu jàpp ko ti la taaji ab yi moom dugal libéré Bambey yépp nga xam ne ñépp a ngi doon xaar mu nekk ab jongante woo boo xam ne neexoon na lool supporters yi daal di daw kenn xàmmeetul taskatu xibaar supporter jour ba ci staff ñépp jaxasoo jooyoo yeex ak mbëgte ma ne kur ca biir yi ñu dem dund ambiance dal di ñëwaat. pas retenir ça. que depuis le début ñu ngi doon def lu nekk. sincèrement lii rek lañ ci bëggoon a. équipe bi monté Bambey kontaan et tout ça boo seet liggéey bu la rek. liggéey bu la yàgg la ñu ci gërëm euh, njëkkee le président. vraiment il a ménagé aucun effort. surtout tamit monsieur le en même temps les dirigeants les coachs le bureau les joueurs qui sont les acteurs aussi tamit ñu a baax les supporters. la presse moom amuñu seen fay. sincèrement man dama koy wax yéen moom macha allah yéen a permettre tey Bambey daañ dund ba nga xam ne ni ku nekk dina mën a jël kursam di ñaan pour ASC Bambey donc lii daal lañ bëggoon national 2 ñu wan ne beneen palier la buñ ñëwee incha allah ñu dem national 1 ligue 2 ba ligue 1 incha allah Bambey mérité la bonne. sant yàlla rek sant yàlla. ok mu métti lool ñu nekk ci nekk ci nekk ci teel a ko yàlla defal ñu sant bu baax a baax franchement c'est une montée qui qui qui est largement méritée di sant ñëpp nag di ci jàpp ñëpp staff yi ak direction beeg ñëpp mënu ma bàyyi kenn kenn ku ci nekk ñu ñaan yàlla nag affaire yi jëm kanam football Bambey dafa war jóge ci Bambey jaar njaareem dem ca Saly bind seen taarixu football xale yi yi nga xam ne ñoom ñoo di naataangoy Papa Ndiaye yi kenn du leen fàtteeti ndax ñoom ñoo jëkk a yóbbu équipe bu Bambey ci national 2